ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu jokkuwaay ci Seydil Hadji Malick mi ñu jëlee ci ceet doog réer indi ñu ci diin ak tariqa Seydil Hadji Malick mi ñu jëlee ci bakkan ak bànneexu bakkan indi ñu ci topp ak xàmmee Seydil Hadji Malick mi ñu jëlee ci aada ak caaxaan indi ñu ci sunna ak tasawuf Seydi Hadji Malick mi ñu nangoo ci loxo Iblis ak àdduna teg ñu ci loxo yàlla ak yonent bi kooku mooy xalifatullahi wa xalifatu rasulihi fil ardi waaye xalifaam ba muy sëriñ Babacar Si radiyallahu taala di yeesal suñu jokkuwaay ci ginnaawam ak njaboot Serigne Hadji Malick yépp ñu ngi nuyu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour di ko ziar di ko ñaanal di jël nuyoo famille Serigne Hadji Malick teg ko ci loxoom muy famille ta muy nuyoo tariqa bi ak turuqi ak nuyoo lislaam bi yépp ñu continuer ci ngëneel yi nga xam ni moo am ci koor ñu ni waru yow fii mashruiyati sawmi an allaha taala xalaqa al alaaji xam nga lan moo tax suñu borom subhanahu wa waral koor ñu ni suñu boroom subhanahu wa li tax mu waral koor dafa bind xel fa qaala la aqbil fa aqbala yàlla ne xel ba mu ko bindee ba pare mu ni ko kaay avancé xel bi avancé su ma at ba xaala su ma su ma xaal at biir yàlla ni ko demal mu dem fa at bara su ma xaal man anta yàlla ne xel yow yaay kan wa man ana man may kan xel fa xaalal aql anta rabbi wa ana abduka daif ni ko man yow yaay sama boroom man may euh, sa jaam bu doyade yàlla ni ko yaa aql maa xalaqtu xalqan a'azzu minka binduma mbindeef boo xamante ni nii moo la gën a tedd après yàlla bind bakkan bi yàlla bindee bakkan yàlla ni bakkan bakkan wuyuwul ko sax wuyuwul yàlla toppatoo ko yàlla ni ko man anta yaay kan wa man ana maay kan mu ni ko ana ana wa anta anta man maay man yow yaay yow yaa bakkan wax loolu yàlla yàlla digal pour ñu mbugal ko ci safara na ma téeméeri at ñu jël bakkan nuur ko ci safara téeméeri at di ko mbugal téeméeri at ñuy mbugal bakkan fa azabaha binaari jahannama mi ata sana summa axrajaha fa qaala man anta wa man ana yàlla ni bakkan yaay kan maay kan ginnaaw ba mu ko dugalee ci safara mbugal ko bakkan ni ko yaay yow maay man te mbugal nañ ko ci safara fa ajaabatu kal awali su ma jaalaha fi naaril jooxe yàlla ni waaw koom safara yaru ko nañ ko jël ñu dugal ko ci géeju xiif ñu jël bakkan dugal ko ci géeju xiif bakkan am ci géeju xiif téeméeri at ñu daan koy génnee ni teg ko ci kanamu borom bi bakkan ni bàcc bàccaaraan fasa alaha yàlla ni ko maay kan yaay kan faqara bi anha la abdu bakkan ni ko man maay jaam bu doyadi ni ko yaay buur bu màgg yàlla ni ah kon nag kii li koy yar nekkul ci safara boo ko bëggee yar ci xiif nga koy yare yàlla bëgg a yar jullit yi mu daal leen di diggal ñu woor loolu moo waral ñuy woor waa léegi nag loolu moo waral léegi lu tax ñu koy def fanweeri fan ñu koy def fanweeri wax ni anna abana aadama alayhi salaam lamma akala fil janna min ashajara min ashajari min ashajarati baqa fi jawfihi miqdaar salaasina yawman fa lamma taaba ilallahi ama amarahu bi saw sawmi thalathina yawman bi layaaliha yonent yàlla aadama ba ko yàlla nee bu lekk garab aadama lekk garab gi bi mu lekkee garab gi lekk gam ko lekkoon doom ba dafa sax ci biir bi fanweeri fan ba mu tuubee nag yàlla baal ko daal di koy digal ni ko wooral fanweeri fan pour bàkkaar bi set ci yow wicc looloo waral nag ñuy woor fanweeri fan yi bi nag muy bisu douzième jour ci weeru koor am ngëneel gu mu jagoo yonent bi sallallahu alayhi wa ni bi mu jagoo bi bisu fukkeelu fan bi ak ñaar muy ngëneel loo xam ni moo ko moom jaa a yowmal qiyaama aminan min kulli suu'in mooy alaaji mbeng mi buy ñëw yowmal qiyaam dafay ñëw waaye bi muy ñëw dafay am sérénité ni lépp luy lore du ko fa lor loolu nag pour nga bëgg koo am boo ñëwee yowmal xiyaam nga am sérénité am xel mu dal ni dara ci lore yàlla bind du la lor kon boo ko bëggee am da ngay woor bisu fukkeelu fan bi ak ñaar kon suñu woor gii ñu woor fukkeelu fan ak ñaar yàlla nañu ko yàlla nangul ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko sàmmaluñu ko xiir ñu ci def ci lu koy sàmm te ba ñoo xiir ci ñuy def lu koy yàq di leen sant di leen gërëm yéen ñi ñuy doon topp ci Euh, Mame Ndokh TV ak alxaaji Meng Diop ak oustaz Mansour Diène ci Atijaani groupe wafaqana allahu wa iyaakum li taatihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu